par rapport ak CPS donc di chimioprévention saisonnière euh, palu di benn programme boo xam ne programme si euh, activité préventive yi nga xam ne programme national de lutte contre le palu du PNLP di bànqaas bu nekk ci ministère de la santé bu Sénégal moo koy développé di ko def si zone yi nga xam ne seen prévalence palu dafa dépassé 15 pour cent 15 pour mille astaghfirullah donc euh, Touba bari ay zone yoo xam ne seen prévalence euh, dafa dépassé chiffre boobu moo tax ñu nekk ay zone cible sur 29 euh, PPS ñu am Touba 22 ñaar fukk ak ñaar ont été ciblés pour participer à la CPS donc muy activité boo xam ne dañ koy def période bi nga xam ne cible ci la gën a taree ci gox bi euh, ñu sible xale yi nga xam ne ñoo am ñetti weer ba fukki at euh, ñoom la ñuy jox ay doom lu mat ñetti fan ñu def ko weer bu nekk donc ren ñu war ko tàmbali le 23 incha allah ñaan suñu borom yeggale ñu si ak jàmm te liñ ci yéene lépp ñu mottali ko te lépp loo xam ne daaw euh, gis nañ ne lu ñu war a améliorer la ren mu dimbali ñu ba ñu surmonter ko. Euh, donc 22 post yi nag euh, bu ñu bëggee lim benn par benn day metti waaye ñu xam ne sur les 28 29 postes 28 22 ñoo war a def CPS waaye ñeneen yi nga xam ne defuñu CPS ñu xam ne tamit activité euh, prévention wu palu yamul rek ci CPS ñu soññewaat ci mindaa yi soññewaat ci yi bi mooy doom ñuy jox soxna yi bu ñu nekkee ay jigéen ñu wérul ba mu dimbali leen ba ñu bañ a sibiru ak euh, lépp xale bi feebar ñu teel ko yóbbu hôpital wala mag mi feebar yooyu yëpp ay stratégie la yoo xam ne ñu ngi koy développé pour xeex si biru ci euh, dëkk bi vraiment programme euh, national de lutte contre le palu dafay intégré wu ci benn programme d'accélération plan stratégique national boo xam ne seen objectif mooy vraiment un Sénégal émergent sans palu te bu Touba réussir défi bi rek daanaka euh, ñoom ñoo atteindre seen objectif boobu day yomb euh, impact bi moom nit ñi sax ñoo koy jëkk wax ndax ñoom seen bopp xam nañ ne li daan am nit ci fibiru ñu leen yóbbu hôpital avant ñuy def CPS daaw ba ñu defee CPS wàññeeku na mais incidence bi mu ngi jóge ci 16 virgule 7 dem ci 12 virgule 1 donc muy loo xam ne quand même bon bu am solo la te ren ñaan nañ yàlla dépassé euh, différence boobu ba gën a mu gën a wàcc ba ñu dugg carrément dans le vert bokk ci zone de pré préélimination